ginnaaw bu nu santee suñu borom subhanahu wa taala julli ci yonentam bu tedd ba sallallahu alayhi wa sallam dellu jaajëfal seexna alxadim alayhi akbaru ridwanullahi baaxil xadim di ñaan suñu borom subhanahu wa taala fayal nu ko dellu ñaanal seex muhammadul muntaqa suñu borom yàggal ko fi lool ba li mu liggéeyal lislaam ak njobootuk lislaam mu àggale ko fu kawe dellu santa suñu borom subhanahu wa taala bi mu nu mayee ñu dikkaat ci barab bi ci ëttu M-Media Group Nourou Darayni fas yéene àndaat ak yéen ci sunu jataayu jigéen ñi sunu émission zaadu nisaa'il muslimaati li nasihatil muminina wal muminaati doon jataay boo xam ne jataayu fàttalante la waaye jataayu laayanti biir la comme ni nga xam ne noonu lañ koy faral di waxe nu fa siini dikkaat insha allah taala tey ci sunu jataayu eh, zaadu nisaa il muslimaati li nasihati al muminina wal muminaati mel ni jataay bi passé noo ngi doon wax ci lu jëm ci wàllu jamono fi mu tollu ak nit ñi fi ñu tollu ëpp ci nit ñi fi ñu tollu seen diggante ak seen boroom waaye seen diggante ak àddina waaye laata loolu xañ na ñu dikk def ñeen ko an defee delloo leeral ci ne jëmm ji wax ak yéen du saagan ne dafa jub bay jubale déedéet du saagan ne dafa xam itam bay xamle déedéet dafa am lu nu yaakaar ci moom rek ba tax ñu jox ko jataay bi mu ci wasloo ak xam waaye du saagan ne dafa nekk borom xam-xam buy waare ku jub wala ku jub lool ba toog di jubale déedéet maa ngi nag suñu borom subhanahu wa taala def nu ñu nekk ku jub waaye def nañu nekk boroom xam-xam yuy jëfe seen xam-xam euh, fekk rek ne alquran moo wax ne yéen yéenay xeet bi gën ci xeet yi ndax da ngeen di digle aw yiw di tere safaanub yiw yonent bi sallallahu alayhi wa am na xadis bu wax ne am na ci aljana bunt boo xam ne baab la amru bil ma'ruf wa nahyil munkar la ëllëg yawmal qiyaam ña daan digle aw yiw tey tere safaanub Euh, tey tere safaan bi ñoom ñoo koy dugge Sëriñ Tuubaa wax ne ne wa amur bil ma'ruf wa xayir munkara wan suuf wa nabi zaxtiraari mankara waaye nag wabda bi nafsika kon li ñuy commencé li ñuy wax lépp lépp rek noo ngi koy commencé ci suñu bop li ñuy digle noo koy commencé ci suñu bopp li ñuy tere noo koy commencé ci suñu bopp dañaan suñu bopp may ndu kattan ak ngëm ak Euh, ragal yàlla gunu man li ñuy digle ñu ci jiitu waaye li ñuy tere ñu ci jiitu ñu jiitu ci bàyyi ko kon mel ni sunu jataay bii nga xam ne noo moo passé noo doon wax ci lenn ci euh, nit ñi li leen àddina jaral ak li leen suñu borom subhanahu wa ta'ala jaral nga xam ne ni war na jële suñu borom fan war teg suñu borom foofu lañ teg àddina teg fa alal eh, ba ñenn ñi ittewu ittewu àddina ittewu nga xam ne dañuy dem ba fàtte seen borom fàtte ne seen borom subhanahu wa taala dafa wax ne wa jinna wal insa illa li yaabudun doomu aadama yi ak jinne yi sàkku ma leen budul ñu jaamu kon doomu aadama bi ko suñu borom indee ci kaw suuf la mu war jiital ci àddina mooy jaamu boroom tabaraka wa taala jiital ko ci lépp ci guddi yi ci bëccëg ya ci suba ya ci ngoon ya muy taw wala muy naaj waaye ni ngay gisa da ngay gis ne dañuy farlu lool ci wut àddina waaye yaafus lool ci wut suñu boroom subhanahu taala rawat na sunu bokki soxna yi comme nin ko misaal woon bii passé ci soxna su tedd ju soo sey di soxna jaratullah farlu gën xam ne moom la amoon ci digganteem ak boroomam nga xam ne jigéen du caagin ne day toog rek jàpp ne euh, toujours ma rek góor moo koy raw ci digganteem ak boromam bari waa na jigéen ñoo xam ne bari na góor ñoo xam ne ñoo leen raw ci seen diggante ak seen borom ngir seen ak sàmm ngir seen ak ragal yàlla ngir seen ak bëgg yàlla ngir seen ak yaakaar yàlla ak seen ak jaamu suñu borom subhanahu wa taala ba jeex ba jeex ca takk ñu bari ci mu bari lool ñu jëloon ci misaal ci ki ñu gën a jege muy soxna Jaaratullah li nga xam ne moom moo dox ci digganteem ak boroomam ci wàllu jaamu ga ak la ca aju ak topp ndigalam ya waaye bàyyi tereem ya ba suñ boroom baaxee ko kii nga xam ne mooy ki nga xam ne dafa feeñ ci jamono te duutul làqu ba suñ boroom ba fee li suñ boroom di lem dendem bi mooy Seexul Xadiim mu mel ni jigéen ñi foofu lañu war a jël misaal waaye bul jël rek misaal ci ko xam ne lépp mu àddina la ngay xool ci moom kon su boobaa wàllu yàlla ak la ko war na am man na laa raw kon sunu bokki jigéen yi nanu gën a farlu ci xam ne ne sunu borom waxe ci alquran innal muslimina wal muslimati wal muminina wal muminati ba aye ba jeex ñaare garaat bi suñ borom subhanahu wa taala takkal góor mën na ko takkal jigéen am na ci nag yoo xam ne góor rek moo ko jey moo ko waxoon nañ ko ci biir jataay yi nga xam ne moo paas waaye li ci ëpp ci garaat yi bu ci góor àgg ci ak wàllu farlu ci diggante boobu suñ boroom jigéen man na ca àgg am na ci sax na jigéen ña àgg na ca te am na góor ñu ca àggul kon farlu rekk mooy maye eh, mooy tax suñ boroom subhanahu wa taala defal la ëpp cër ci si ak suñ boroom am nag fadlu tax si am na fadlu kës bi leeral nañ ko ci jataay yi nga xam ne moo paase kon insha allahu taala sunu jotaay yi nga xam jotaay yi nga xam ne moo paase woon noo ngi ci doon waxtaane ci wàllu farlu ci sa diggante ak sa borom waaye farlu ci sa diggante ak say morom ak jaamu suñu borom subhanahu wa taala ci jëf ay ndigalam waaye bàyyi ay tereem kon loolu moo ne yóbbee tey ñu jàll ba léegi ci ndénkaan yooyu jàll ci farlu ci ni doomu aadama farlu digganteem ak boromam guddi ak bëccëg rawat na fi xam ne foofu la jaamu suñu borom subhanahu wa taala gën a jafee waaye itam fa la gën a bare te mooy guddi waxoon nañ ko keroog bu andi ci misaal ci ñaari ñaari nit yàlla yu mag yooyu muy asixuna junaydi yu ak eh, ibnu xaasim ci wàllu seen diggante seen borom subhanahu wa taala ci nekkoon ay jaam yàlla kenn ki siiw lool ci ci ci ci niti yàlla yi te mooy niti tasaw bi ki ci siiw lool ci wàllu fiq te mooy ibnu xaasim waaye ñoom ñëpp nañu nekk ay jaamukat yàlla nekk ay niti yàlla waaye fonk gunu fonkoon ak jaamu suñ borom rawat na ci guddi waxtu bi nga xam ne waxtu bu mu gën a jafe te am fa solo lool mooy li ñu tuddee njël bu jëkk nga xam ne bi nu génnee àddina am ñenn ci gaa yu baax yi gis leen laaj leen naka ngeen def ak seen borom subhanahu wa taala ñu xebaar leen ne leen lanu jaamu woon suñ borom jeex na ba mu des yoolu ñaari raka yoo xam ne dañ ko saxalan dañ ko julli ci njël kon julli njël wala am solo am solo koo xam ne foo ko takk rek passé passé na ko boo wàccee sax ba ci ñëw ba ci fajar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ñaari rakaa yi fajar moo gën àddina ak li ci biiram te lu ëpp ci nit ñi di ko sàggane moom ñaari rakaa yi fajar kon loolu moo ñu yóbbee tey ñu dikk ci ndénkaan boo xam ne bu ñu duggee ci téere bu ñuy wax axiru zaman am na nag ñu ciy wax ay wax waaye nag lim ci itte rek mooy tomb yi nga xam ne moom la ñu jël ci biir di ko waxtaanee te muy tomb yoo xam ne yu dëppoo ak alquran la yu dëppoo ak xadis yonent bi sallallahu alayhi waaye dëpp ak njàngaleem Serigne Touba ridwanullahi ak njàngaleem waroom xam-xam yi mu cay wax ne aleykum bi taati rahmani ya jumlata tullaabi wal ixwaani ba léegi nag ñoo ngi ci zaadu nisa mu yëbbalu soxna yi mu wax ne maa ngi leen di dénk ci ngen topp suñu borom subhanahu wa taala yéen mboolem taalibe yi ak yéen mboolem mbokk yi mbokk yi ba ko waxee mboolem jullit dugg na ndax al muslim aqul muslim na ngeen farlu ci topp yàlla suñu borom wa taala waaye ngeen farlu ci topp sunna Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag ngeen def ko ba'da taallumi wa bil aadaabi ndax wa kullu yun ji min al azabi waaye nag ginnaaw ba ngeen ba ngeen di topp yàlla na jiital sàkku xam-xam ba pare waaye ànd ak i teggin ndax fa kasratul ilmi bi xayri adabin jaalibatun ilal aza wa xam-xam bu bari lool te ànd ki teggin Sëriñ Tuubaa nee na daf lay xëcc jëmale ci ay lor ak coono ndax ay teggin dafa am solo teggin am na fu Sëriñ Tuubaa doon wax wa saxa anna awliya ilwasilin ma wasalu ila l ilahi alalamin bi kasrati al amali ka salaati wa xajji baytillahi wa zakaati bal wasalu ilayhi bi riaya li jumlati l aadaabi inaaya wax na ne niti ñi nga xam ne ñoo dem ba àgg ñoo dem ba àgg ci euh, suñu borom subhanahu wa taala la du caagin julli yu bari du caagin koor yu bari du caagin asaka yu bari waaye lépp dañ ko def di julli di wóor di asaka waaye nag boole ko ak i teggin bal wasalu ilayhi bi riaya li jumlatil aadabi bil inaaya loolu moo tax mu ne euh, wa baada taallumi wa bil aadabi wa kullu zi yunji min al azabi waaye wa bitibaa'i sunnati rasuli wa sunnati sahaaba wa sunnati waaye ngeen farlu ci topp sunnaas yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa nga xam ne ñu maadu lan Sëriñ Tuubaa waxoon feneen fal xayru kulluhu fi l ittiba wa charru fi l nan na mbooleem mbooleem lépp lu di aw yiw mi ngi ci topp sunna su yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ci topp bidaa kon wa bitibaaci sunnati rasuli wa sunnati saxaabati aluduli waaye wa bimtisaali amri zil jalaali wa tarki nahyihi ila almaali waaye itam ngeen farlu ci jëfe ndigalal suñ borom subhanahu wa taala waaye farlu ci bàyyi tere suñ borom subhanahu wa taala waxoon nañ léegi ci jëf ndigal bàyyi tere ndax alquran dafa wax ne kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar waxoon nañ bi nga xam ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko ci digle aw yiw waxoon na ne tam li Sëriñ Tuubaa wax ci ne del digle yiw day aw ñawteef waaye nag nga commencé ko ci sa bopp kon wa bimtisaali amri sil jalali wa tarki nahyihi ilal maali kon insha allahu taala foofu la ñuy taxalu sunu jotaayu tey di ñaan sunu boom defal nu ak digg ak topp loolu moo nekkoon sunu émission tey zaadu nisaa il muslimaati li nasihati l muminina wal muminaati di ñaan sunu borom subhanahu wa taala defal nu ak digg ak lu topp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ama bu xasin alfaruq sayiduna fa fi masaayaahu laa yartaabu tayyaaru وعوى المتم ذوي الإسلام يوم عدا ميم بي كان للإسلام إظهار والله فرق بالفاروق سيدنا الحق من باطل أبدته فجار